jërë ngeen jëf ami internet Dakar live ñu ngi la ñu nuyu di am mbégte saa su nekk fii ci Dakar live TV tey nag eh, dañuy waxtaan waxtaan bu gaaw rek indi benn leeral bu am solo eh, su ko defee internet yi tamit mën kaa bàyyi xel Aziza maa ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum Papa maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu équipe bu Dakar live yëpp. di am mbégte ak contentement ci déplacement bi ak dérangement bi. Mhm. maa ngi nuyu képp ku ñu seetaan à travers live. macha allah mhm. euh, souvent nag dañuy dégg ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu ba am tur wala ñu amul tur sax di ko wax ne euh, nit bu nekkee ci benn jëmmu jamono siiw bu nekkee ci tolof tolof ñi mu doon àndal ñëpp dañuy daw gwaañ mën ko ginnaaw waaye yow daa mel ni bokkoo ci mbir moomu noonu parce yaa ngi jóg pour indi ay témoignages indi ay leeral bi ñu xamante sama benn xarit bi ñu naan Ibrahima Ngom ñu gën ko xam ci may Mayoro jaay ay oto mu doon def anniversaire moo fa demee nag moo présenté euh, délégué Amar xam nga ñu kaf foore toog fa jouer play ci suba si xam nga le soir mu ñëwaat mu di teraanga bu bëri defal ma yaa ngi comprendre pare woo ma ba mu ñëw ci otom mu dugal ma conseiller ma mm-hmm. wax dëgg fi yàlla mu nekk grand bu baax mm-hmm. chaque jour man moom dañuy déggante téléphone mooy yokk xam nga di ma dooleel. Mm-hmm. naan ma àdduna nii la nii ak nii la jàppal. Mm-hmm. xam nga li nga bëgg xam li ngay bañ. Mm-hmm. kon nag tey ji nag bu ko caabi féetee ginnaaw xam nga parce que damay bañ ñu am a dàkkantelee. ñu naan parfois dañuy xam nit xam nga mu ñuy teral dem ba jëmbi jamono. maanaam caabi féete ko ginnaaw wala mu ne ci ay torof torof xam nga ñu fàtte ko. te loolu laay bañ daal ñu ñu ñu ñu di ma ci tudd. moo tax daal xam nga ma ma génn pour leeral. parce que tamit eh, ki la naan sangul sa taar la bëggal ma di ko ñaanal foofu mu nekk yàlla na ko fa yàlla génne xam naa yàggatul léegi incha fii képp ku nekk artiste yàlla def nga xamante ne Modou Délégué xam nga ne boo xewlee da ciy sonn lu mën ak lu mënul da koy def franchement parler man bi ma xewlee bi ma xewlee sama soirée yi moo ko woowee xaas bu bëri la jox tike yëpp da koy jënd kon nag tey ji ba nekk diggante foo jaar damay génn yàlla may leen wér ak wérle boo ñu génnee ñu mën a nekkaat ci seen yitte dama bëgg nag artistes yi artistes yëpp laay lancé défi képp koo xamante si am nga coloré te Modou délégué Amar mës laa defal lu baax bëgg naa nga def ci geste bu rafet parce nag maa ngi dégg ay wax waaw gars yi wax naan xam nga instant gars yi daw xam nga bon boo gisee ma toog ba heure bi sax soog cee wax sax ça veut dire a ku ne xam ne dama xawoon jàpp wax dëgg fi yàlla dama xawoon jàpp nekk a mais nag moom xam na man xam naa di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm muy suma grand suma xarit wax dëgg fi yàlla yàlla na ñëpp am jàmm délégué Amar moom nit ku baax la moom franchement. Mhm. jot nga ko wala woo téléphone pour xam fa mu waa ah, bon jotuma ko seeti nag parce que dégg naa ni euh, mu ngi mu ngi sëbi xam nga peut-être temps bi moo ñu ko mayul ak xam nga fi ngay jaar ba am benn benn benn benn kii bi mais xam naa incha allah le le 3 novembre incha allah man maay dem sëbi jëli ko. incha allah bu neex yàlla man maay dem sëbi jëli ko ànd ak moom ñëw wayal ko xam nga jëli ko indi ko incha allah bu neex yàlla. baax mhm. témoignage yi am na solo waaye tamit leen rek la bàyyi xel tamit di ko gën a jaax yéen artistes yi wala sax nitu àdduna yi sax la wax ñun ñëpp mhm. mhm. dégg dégg buub si sax di toog ñenn ci artistes yi naan lu tax woytuñ Cheikh Amar lu tax woytuñ Jamaro Sénégal nag moo demee noonu mais nag na ko yàlla génnee fi nekk foofu noonu indiwaat ko ci nit ñi waaye tamit képp ko fa nekk yàlla na yàlla indiwaat ak ngay tàmbali waaw de la fin nag mooy maa ngi nuyu à travers Dakar Live di leen nuyu di nuyu seen caméraman ak seen techniciens yi di am mbégte ku may bëggee di ñaan yàlla na Sénégal am jàmm ku ci nekk ci li nga di ci yëngatu bu doonee li gën ci yow yàlla na ci yàlla may ndam ñi tëdd ci lalu hôpitaux yàlla na yàlla yëkkati ñi caabi féete ginnaaw ña xam ne ñi seen xel dem ku ci nekk daal bépp jàngoor wàllu yàlla ko yàlla sabaram saafara yàlla li may wax rek ñuy mucc tey mos mhm. booy mucc moom yaakaar naa di mos incha bu neex yàlla yàlla ñëpp am jàmm merci encore une fois yàlla mhm. Aziza kàddu yu rafet la ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk bàyyi xel Dakar Live TV ñu nag Aziza la woon gis ngeen waxtaan bi am na solo waaye tamit kàddu yu rafet yi nga xam ne jot na ko teg ci kaw ndodd ki koy àndal da wax si moom lu rafet donte sax bu ngeen seqee sax waxal si rafet rek moom ndax am na amul solo ñu ngi leen jox dox daje beneen yoon fii ci Dakar Live TV jërëjëf